loo ci ñuy jàpp ni tey aubaine la pour ñoom maanaam lu baax la parce que dinañ profito récupérer électorat am mën ci am dara. Euh, Pape man du ma wax mukk lu ma gëmul au moins sénégalais yi xam na ne Bougane nit ku constant la du wax lu mu gëmul Ousmane Sonko bi ñu mujjee wax man ak moom euh, je crois que c'est peut-être il y un mois nit ku bëgg réewam laa waxtaanal. nit ku am yéene ci réewam laa waxtaanal nit koo xam ne li ko intéressé mooy naka lañu mën a def ba lii fi nekk jóge fi moo tax lii ko dal. yéene woo yéene woo ko. non nit xam nga kaso moom damay man dama lay non xam nga xam nga loolu loolu mënul nekk. mais mais man déet wala waaw non je dama lay wax ne la. mënul nekk man lu ma yéene kenn ci àdduna. ok pourquoi parce que. c'est quelqu'un qui a donné tout aux Sénégalais Ousmane Sonko dafa ñàkk liggéeyam pour Sénégalais yi Ousmane Sonko këram dafa yëngu ngir Sénégalais yi Sonko dafa nekk koo xam ne lépp jox na ko Sénégal ba tey jii ñàkk libertéem yegg ba ci santeem di yëngatu donc Ousmane Sonko a tout fait pour ce pays c'est pourquoi je lui lance un appel solennel grand frère il faut arrêter cette grève de la faim les sénégalais ont besoin de toi vous vous êtes battus Ousmane Sonko lépp lu waroon ci sénégalais yi def na ko. mais xam nga ni bu laajee nga laaj moom la ñuy jox. ma ne. mais xam nga ni moom bu laajee nga laaj moom la ñuy jox. Euh, li gën a tax. waaw ma am gëm-gëmu ne. Mhm. moom Ousmane dafa war a bokk. d'abord c'est pour la beauté de la démocratie mais dama gëm ne 2024 man su ma gañee Sénégal te gañewuma ko ci compétition bu Ousmane Sonko du ma neex. dama gëm ne dafa war a bokk benn moo tax ma koy wax ne il faut mu arrêter grève de la faim bi sénégalais yi dañ ko soxla moom ci yaakaar bi mu bi mu suscité pour les sénégalais yaa ngi wax ne am na ñoo xam ne dañu jàpp ne wuy warul dem élection mais man dama jàpp ne Pastef il faut ñu xam ne Macky Sall du nit koo xam ne da ngay abdiquer ci kanamam Pastef nañu organiser wu parti politique la ñu ne dissoudre nañ ko nañ créer mouvement mouvement Pastef wut candidat seen candidat Ousmane Sonko préparer plan B bu ñu demee ba yegg ci galgal nga xam ne yàgg nañu koy def mais ñoom waa Pastef nañu wut beneen candidat ci seen biir parce que Pastef dafa bokk ci histoire politique gu Sénégal man loolu laa gëm.